asalaamaaleykum mbokk yéen ñuy suivre ci seen site internet lutte tv point com ñu ngi leen nuyu fi ñu leen doon nuyoo waaw di ñëw defal leen benn jàngat ci poule A bi nga xamante ni boole nañ ko ak poule B bi keroog ñu jàngaloon leen poule B bi loolu nag Fallou Ndiaye moo ko taxawal moo war ci ànd ak Babacar Babacar ñu ngi leen nuyu. Lamine ñu ngi lay fay di nuyu ñëpp ñuy suivre lutte tv com di leen jaar di la ñaanal jàmm comme ni nga ko waxee rek. dañu fas yéene jàngat poul bi nga xam ne moom mooy poul ñoom doomu dàngu soq ak mobile bu Grand Yoff ak ki nga xam moom mooy euh, doomu dàngu ak daan fas ci yéene waxtaan rek comme niñ ko defe woon kere ci poulu ñoom général ak ñu fas yéene ñëw tey dugg ci poul boobu waxtaan ci lu yaatoo yaatu daal. waaw waxtaan ci tamit waxtaanaa la tamit ci li nga xamante ni Fallou Ndiaye def na ko muy muy muy site internet boo xamante ne tijji na ko ak page Facebook boo xamante ne tijji na ko yooyu yëpp muy TFP bi waa TFP waa loolu am na solo parce que bu dee page Facebook bi am na solo bu dee site bi tamit am na solo parce que muy wan mooy que ne mbir mi dañ na ko yokkul yaa wàññi te xëy na li ñu ci jublu mooy gën a yokku gën a innové gën a yóbbu làmb ci yeneen niveau loolu tamit du ñu mën la dul ñaanal ko si yàlla rek lépp nekk ay ndam daal parce que ren indi na innovation moom Fallou waaw TFP mooy lan Babacar. TFP mooy tournoi de Fallou production tournoi Fallou production TFP loolu la parce que ay tournoi doon na fi am ay kalaaf ay TNT ak yu nekk moom tam bi mu ñëwee indi yëfu boppam indi turam tournoi de Fallou production parce que Ndiaye production rek la doon tëgëri dem mais bi yoon nag daf ci tot yokku tournoi de Fallou production muy TFP. mu mel ne Ndiaye production boobu dafay continuer di tëgg sax mais tournoi bi moo tudd TFP léegi nag keroog def nañ tirage bi soq war am ki nga xamante ne moom mooy mobile te na lu ne yekkoon na ko ko. waaw mobile day lu ne wax na ko soq avant ñu parce que ñun dañu demoon déplacé wu fekk ko Grand Yoff Arafat fa mu dëkk di fa entraîné ci saalam mu am wax yu bëri yu mu wax li la nag tontu du forox te yóbbante galgal ubbu làmb looloo ca amoon bi mu waxee nag wax na la mu xalaat ci soq ak yooyu ci yu bëree bare bëri xam le sax ne soq li muy wax waxu dof la parce que la mu waxoon moom moom mooy mbër bi nga xam ne ci poule bi moom la ñëpp bëgg a daan mobile xamal ne loolu muy wax waxu dof la ko quoi du waxu kii waxu nit ah kon nag kera bi ñu jàkkaaroo ñu def tirage bi ñoom ñaar ñu war a daje dafa mel ni daal ñoom ñaar seen affaire bi nit ñi xalaatoon nañ ko géntoon nañ ko far yàlla ñëw indi ko daal xaw ma nag euh, après ah, xam naa daal dina doon combat tamit bu méttee méttee parce que soq ku ko xam xam ne espoir la bu dëkk Pikine waa lamb yëpp xam ko muy drainer foule bu bëri mobile tamit fan yi mu nekk ci lancé bu baax kon moo lay wan ne ñoom ñaar promoteurs yi bëggoon nañ combat bi sax grand combat. promoteur yu bëri dox nañ ko mais bu yàlla defee Fallou Ndiaye am ko ci tournoi ah dina nekk combat boo xam ne daal mu mu muy nekk ci journée bu njëkk bi ñoom ñuy njëkk a bëree Lamine loolu yaakaar naa dina neex amateuru làmb yi waaye dina neex képp ku nga xam ne ni daal bëgg nga gis combat bu neex diggante. combat boobu yow lan moo tax nga ne dina neex lan nga ci xalaat bëri nga ci xalaat wala xeex nga ci xalaat. li tax ma ma ne dina neex parce que ñoom ñaar ni ñu waxee soq dégg nañ kàddoom mobile lañ njëkk a jëli dégg kàddoom. non kay ba léegi waxul moom ndax boo gisee keroog bi ñu defee tirage bi. bi nee bi biñ ne Ramdaan am na doomu dàngu rek mobile moom dafa jóg. fecc na fa fecc rëy mel dafa yàkkamti woon soox moom. waaw man dama ne sax moom dafa moom non moom dafa yàkkamti woon bëreeg soox ndax nag ci ay information wala lu ñu xam mooy laajte na soox fu ne pour bëgg a bëri ak moom. bañ dox combat bi mu të far ñu daje ci tournoi kon nag moom li mu bëggoon di ko wër ay at wala ay weer yàlla dafa def ñu daje ci tournoi ñu tiire ñoom ñaar ñu njëkk a daje xam naa loolu nag kontaan loo na ko ba tax mu jóg fecc wane ne moom moom affaire bi moom la soxit ne ko dalal dal la nañ dal rek lii moom amul ma dem yow yàgg nañ bëri bëggoon nga ko am na dinañu bëri mais li ma ci xam mooy mobile digganteem ak sook man gëm naa ne. combat bu du yomb beneen bi ci des mooy lamb ju neex la ndax li tax mu neex mooy mobile quartier bi mu dëkk quartier populaire la muy Grand Yoff soq dëkk Pikine ginnaaw raay di quartier populaire ku ci nekk mbooloo mu bëree bëree bëri di jóg di topp sa kaw kon ñaar ñooñu suñ leen dajalee ci poul ñu war a njëkk a bëree maanaam lamb ji dana neex trop trop trop trop. ci bëre bi ci bëre bi. waaw si biir bëre bi buñ leen xoolee ci façon bi ñuy bëre parce ci ñaari combat yi mu mujj a bëre muy digganteem ak Kara Dollé ak digganteem ak général euh, astafurla Tapha Leer boo gisee combat yi daf ci yàgg yaa ngi dégg dafa yàgg ci combat ci surtout combat mag ki nga xam moom mooy Kara yàgg na ca lool te ku ne gis na kera Tapha Leer euh, Kara Dollé form forme bu tax ñuy wax Tapha Leer même chose bi ñu sumee ko ñëpp dañ ne woon bis bu ko jàppee mu jeex waaye terewut combat ba yéex kon moom it ci ay combat donte mu ngi daan mais am na tuuti benn euh, loo xam da ko ci gis loo xam ne ñu bëri sax dañuy dem ba jàpp ne kii bëreem des na. mais nag deux derniers combats mi victoire da ko daan avec la manière ay combats yu rëy la même combats yi su yàggee tamit jëlee rëy na. te tey ku ci nekk nam la daanee ñoom ñaar ñoom ñaar ñoo bokk nu mu leen daanee waa ku ci nekk dafa jàpp sa tànk yaa ngi dégg yëkkati ko teq bi ci des. nga jaax daanu ba jaaxaan jaaxaan moom ko def ci làmb moom kenn du lam-lame jëru sa arbitre di àdd maanaam di wax jaaxaat moom mooy carte ga leer na soq tamit jóge ci beneen komba wala wala jóge ci benn combat ginnaaw bi mu amee defee ci digganteem ak Laye Pythagore mu jóge ci benn combat moom ak Pambaay nit ñi tamit xaw ko mere ci ni mu bëree ndax nit ñi dañoo jàppoon ni day jàpp Pambaay rek daan kon moom tamit combat bi am na beneen xam xar kanam bu mu war a taxaw. waaw surtout sox parce que boo xoo boo leen comparé ñoom ñaar ku ci ne ñaari combat yi ngi mujj a def pour bu ñu leen pourcentage yi mu bi gën le fukki yoon ak juróom ndax moom ci mu ngi jóge ci laay Pythagore moom laay Pythagore dafa daan magam moom mu mer gem bu jël ko laay daan ko ci combat bu gaaw a gaaw a gaaw. wan ko ne maa la dàq bëre mu jóge ci ñu jox ko pambaay ñëpp na bu ko jàppee mu jeex mu ñëw moog pambaay ñuy bëre di bëre di bëre baar bi ba tas combat ba jox ko victoire par ay avertissement yoo xam ne ni pambaay am na ko kon soq ci loolu la mujjee loolu na ku ci jóge di dajeeg mobile boo xam ne soxla woon na la ba pare jóge ci ndam yu leer nañ yaakaar naa ne ah war na indi taxawaay bu bees teq moom soq waa war na war naa wane beneen xar kanam ak ñeneen tamit ñu war a war yeneen war wane yeneen xar kanam mooy diggante doomu dàngu ak Ramdan ñoom tamit ñoom ñaar ñoo war a laale ci poule A bi ba tey. waa foofu ba tey li ma la waaw foofu ba tey làmb nga fa waaw doomu dàngu ku ko xam di nga xam ne mbër la moo xam ne ni ñoo ñii dañu yaakaar ne sax moom mag ñi wala nangam mais magu leen Lamine encore une fois ñu mu bokkal poul bi ay génération lañ parce que ñoo duggandoo ci làmb da leen gën a riche mbër yi mu bëreel bokkul ak ñoom mbër yi ñu bëreel ay kombaam da gën a bëri seeni combat yaa ngi dégg moo tax mu ëppale leen ay combat ëppale leen ay victoire gën leen a riche kon moom mën nañ ne poule bi sax boo xoolee bu ñu doon tànn favori moom lañ ko ciy jox doomu Dango parce que loolu am na mu war a bëreeg nag Ramdaan Ramdaan boo xam ne ku ne gis na ni muy doxale ci ay làmbam day ñëw bëri imposé dooleem ak force physique am daan la jóge jëli la fi dem maanaam dem ci leneen yaa ngi dégg bu tey nag buñ ko bu bu waree daj ak mbër bu ñuy doomu Dango di mbëru lébu di jóge Tëngéej. waa Lebu yëpp di ko ëmb muy ñëw kee tamit di doomu Saalum waaye dëkk parcelle kon dina nekk combat boo xam ne man maanaam Lamine combat boobu tamit nañu xaar nekk combat buy neex la ñoom ñaar tamit daa mel ni soxla woon te woon nañu ndax biñ tirage kera ñoom it ku ci ne na waaw wax waxante nañ waxante bu yàgg ñoom ñaar. waaw ñoom ñaar jot nañoo waxante sax ba tegante dënd. voilà ñoom ñaar ñoo fa def boo gisee ñu bëree fa néew ne bëri na mais ñoom ñaar ñoo fa waxante ba ku nekk jóg. yëkkati sa dënn nga taganteeg sa moroom dënn kon muy wane ne ñoom ñaar dafa mel ñoom tamit soxla wante woon nañu soxla wante nañu lool yàlla def na nag liñ naan ku bëgg fu mu fanaan ak ku bëgg ku ko wet li daa mel ni moom ci diggante doomu dàngu ak kii nga xam ne moom mooy ramdaan mais li man a xamal daal mooy euh, ramdaan na jox ci doomu dàngu encore une fois parce que xam ma lu tax du ngaaka mën naa bëre te mën naa xeex. kan mën naa bëre ñoom ñaar. suñ leen xoolee ci ay façon bëre yi ñu gis ñoom ñu ñu bëre ko damay jox doomu dàngu cinquante et pour cent ci côté bëre bi mm. waaw. côté xeex bi. côté xeex bi tamit Ramdaan ba tey gisaguñ ko mu xeex mais nag ci ci xeex bu jub ba tey doomu dàngu moo xaw avantage mais dafa am leneen lu des ci seen diggante mm, ci lu ma jàngat mooy ci côté doole bi mm-hmm. yaakaar naa ne Ramdaan moo koy sàcc doole. Mm. loolu moom gis naa ko ci te doole nag des fois Lamine dana éliminer technique dana éliminer bëri dana éliminer xeex te boo xoolee adversaire doomu euh, Ramdan yëpp ku mu ci jàpp rek. mais pour pour A est-ce que ëppante doole am na ci. waaw non du bëri boo xoolee bu ñu maanaam ëppante doole du ci ñàkk. parce que ñoom mënuñoo toll même doole loolu mënul ne ma waxee ëppante doole. waaw maanaam nekkul lu ko nekkul poul boo xamante ne ku ci nekk dangay ngay jàkkaarloog nit ni kii moo ëpp doole moroomam ba su ko tee du yëngu loolu amul ci poul bi. amul ci poul bi mais keroog bi ñu leen tegee ñu toog ku ci nekk yëngutu physiquement Ramdaan fi ñu ko gis mu toog da ngay gis day ñaq rek te loolu tamit. dafa ko nekkul woon fu tàng fu tax nit war a ñaq-ñaq boobu kon ça veut dire que loolu tamit li muy reflété mooy que ni athlète bi moom mu ngi ci forme bu mu ngi liggéey yaa ngi dégg làmb ji gëmu maanaam xam nga doole mën nga ko am te doo am coffre bu doy diisaay ak yooyu bokkul coffre parce que seen làmb yooyu dama gëm ne coffre ak force physique bu dëgër koy bëri parce que ay borom doole la ñu kon borom yi doole nag fu ñu jàppante technique dina fa am solo waaye itam doole dafay am solo mais doole moom ëppante nañ ko mais dafa dul bëri amul différence bu bëri. waaw léegi ma dama lay laaj soq ak mobile kan mooy favori. ak mobile kan mooy favori soo ma ko laajee dama naan mobile mooy favori. doomu dàngu Ramadane kan mooy favori. doomu dàngu mooy favori. poule ah poule bee bi tamit tirage nañ ko. waaw boobu moom dañ koy tënk rek comme jàngatoon nañ ko. Mhm. général ndongo loolu war am boobu tamit kan mooy favori. général mooy favori. poule beneen poule bi ba léegi bi bee bi ba léegi ci la ñu des mhm. Pape Mbaye war a bëri ak ñàkk jariñu mhm. ñoom ñaar kan mooy favori. actuellement fi mu nekk nii su ma la mënee wax dama la la ñàkk mooy favori. waaw parce que li tax muy favori fi Pape Mbaye mujje ak fi ñàkk mujje Pape Mbaye boo xoolee ci defet la mujjee jóge ci toog ay at gisuñu mu ne ci lit simple bi bi mu daaw digganteem ak soq da koo ak nu ko mën a ñàkkee da koo ñàkk ñàkki jariñu mu doon daan di daan ba benn moment général stopé ko ak booy bawal mais dafa jógaat defaat beneen envol teglante ay combat mm. bu ci mujjee muy digganteem ak ndongolo combat bu metti Ndongo Lo gagné ko par ci ci mais mu bañ parce da ko njëkk a daan ñaari yoon ci ci biir ci biir làmb ji mu dugal recours ñu jox ko ndamam mu jóge ñu jox ko Moussa Balla Gaye moo ko moom baat tontu la kon ça dire que mën nañ ne côté boobu laa ko xaw a joxe favori mais du bëri nag mën naa ko def tamit 51 pour cent rek ndax Pambay tam technicien 51 pour cent waaw loolu nga joxee tey ñu leen di jox rendez-vous incha allah semaine bi di ñëw ci